jërë ngeen jëf mbokk internet ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay bu wér-wér di ñaan Sénégal yal na fi jàmm yàgg di ñaan awooy daw lii suñu borom yërëm leen te xaare leen te àjjana firdawsiya ñi feebar tëdd ci hôpital yi ci kër yàlla suñu borom fëgg seen bopp rawatina ñu caabi féetee ginnaaw yal na suñu borom may leen liberté ndax liberté dara dàq ko chambre une ba fi mu yem ne 14 régions yëpp fépp fu détenu nekk rek maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar te jox sa wàccuwaay bu wér wér di leen ñaanal jàmm ju baree bare na diwaanu Cap a baax di leen ziar di ñaanal jàmm ju baree baree bari yéen ñi si biir ñëpp nag bàyyi ma kenn tey nag ñu ñëw fi post Thiala seet fi xale ndaanaan mu jóge si combat barki Dembo Ndiaye toog diir bu yàgg bëriwut de bi passé ñu gis ko dimanche mu ñëw wane boppam si xeex ba sa bëre ba kooku dañ koy bàyyi mu nuyoo Lamsaar bu <laughs> laal wala bu laal bu Lamsaar. bu laal bu Lamsaar. si maa ngi sant bu baax a baax. maa ngi nuyu baax doon asubilaa bisimilah la wali yàlla di wax jërëjëfe borom tubaa jaraama Cheikh Ibrahima Fall Lamp. sant yàlla bu baax di julli Yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di leen ñaanal fi ñu jëm gënal leen fi ñu jóge waaw di sant waa Poste Thiaroye yëpp di leen nuyu. di nuyu waa monde làmb yëpp. di nuyu Sénégal partout bàyyiwuma kenn leen ñaanal yàlla na fi jàmm yàgg. Hmm. mais Boulaal balaa ñu ñëw si combat bi ñu toog diir bu yàgg gis ñu Boulaal dégguñu Boulaal Boulaal si ban combat la mujjee bëri. waaw man maa ngi mujj ci Jackson waaw Jackson laa mujj bëreel. waaw ma toogaat 4 ans bëreewuma si laa ñëwaat bëre Pokola waaw. diiraan 4 ans yi Boulaal toog ko si lan la nekkoon. waaw ne ci ay parcours rek ne ci mission boo xamante ne nii xëy na suñu borom moo ñu ko teg dañ koy nangu. jël ko ak philosophie boo xamante ne nii biñ ñëwaatee gis ngeen li ngeen ci gis daal. si biir quatre ans Covid bi ñëw na fi si liñ dégg si biir quatre yi su ma juumul amoon nga si waajur bu tawat. waaw dëgg la deux ans yi Covid la beneen un bi si topp suma waajur moo tawatoon mu nekk ak moom beneen un bi si topp gars yi doon nañu proposé ay làmb muy yàqu waaye gis nga fi ko fa yàlla yemale yem na fa waaw bi combat bi bi mu jotee rek suñu borom yombal na ko kon avant Pokola proposé woon nañ yeneen adversaire yu bokk la Pokola. waaw bëri na bëri na ay adversaires yu bëri yuñ ma proposé si biir si biir saison boobu mais yàlla. yàlla non man du ma nekkuma si yooyu man dama xam loolu. Hmm. man xawma loolu man gaynde laa. Ah, bu laal man daan gis gaynde bu waaye bu laal mu demee ba toog ay katana boole bu laal ka nekkul dafa xaw a soppeeku nekk muus. gaynde du loolu muus déedéet. ah gaynde téeméeri at gaynde lay doon. Ah, <laughs> noonu la demee nga toog bi nga ñëwaatee yan adversaire lañ la proposé avant. waaw bëri na bëri na kay moom bëri na jarul lim sax mais proposé nañ lu mat ay six adversaires yoo xam ne dañuy waxtaan ba war a déggoo rek affaire yi gàllankoor dugg si. sa combat waaw jàmbaar la loolu nag ma koy nuyu de di ko ñaanal mu yàgg fi loolu te wér hmm. di wax ne gaynde la waaw na ko gars yi jàppale promoteur bu ndaw la mais ku ambition la ñu koy ñaanal. heure bi déwén yàlla nañ ko tudd foo xamante ne nii mu bokk ci promoteur yu mag yi waaw ñu ngi ko koy ñaanal ku am objectif la comme ambition la jàmbaar dëgg la. combat bi taxaw. mel ni temps diire woon na. waaw temps bi diire na waaw ma ciy profité ci occasion bi sant boo yi nga xam ne ñoo may jàppale lu mu diire diire lu mu metti metti su ma gesoo dama leen di gis suñu ma bàyyi. musuñu nangu sax ma wéet. waaw maa leen nuyu nuyu bu baax a baax di leen sant bu baax di leen këram bu laal départ postare ñëw arène nationale. diggante ma Pokola. bu laal toog quatre ans bëriwul ñëw mobiliser mbooloo mu toll noonu sa bi ngay toog si defet nga jóge nga ñëw mobiliser mbooloo mu toll noonu. waaw liggéey la rek boo xamante ne nii loolu moo lay wan ni maag ñi may àndal du làmb su ma bàyyi woon làmb tey tey la ñuy gën a mën a ànd ak man. waaw yàlla lañ ma toppee mais du làmb hmm. ni nga ñu gisee nii bu ñu bëreek bu ñu bërewul nii lañuy ñuy laay fee waaw ñun duñ ay làmb sax duñ ko bàyyi xel barke Cheikh Ibra ni ñuy dund ni noonu la ñuy dundee ay Baay Faal lañ noonu lañ koy dundee saa su ne waaw. ba mel dafa commencé Lamsaar fa lay wane. non loolu gars yi ñoo ko bëgg indi ay dër bi rek mais loolu dër bi xam nga ñaari jàmbaar moom bu buñ dajee du yomb. fu ngeen jaar. avant combat non yooyu yëpp ay détails la yoo xamante ne ni jarootul fàttaliku comme bëri nañ ba pare waaw li ci des nañ ko rafetal rek xam nga nit ñi dañuy jaawale li nekk ak li ñu doon li nga nekk da cee nekk bis day ñëw nga jóge ci mais li nga doon du mës a denc ci yow waaw li des nañ ko rafetal rek mm, làmb la woon jeex na jeex na et tout mais jarul dër bi quoi waa Lamsaar non mais ñaari jàmbaar la ñuy daje rek xam nga ay xam jàmbaar moom boo ko nekkee di dajeeg sa moroomu jàmbaar moom. dugg na fa du yomb. te dugg na fa. man mm-hmm. da ngeen leen sonal mm, yàlla moo koy dogal rek loolu yàlla moo koy dogal. benn revanche la doon bëri si. yàlla mooy dogal rek <laughs> yàlla moo koy dugg fa loolu dogalu suñu borom la rek ah. ah. Mm, loolu dara. bu ngeen ko jékkoon bu ngeen ko bu ngeen tamit ngeen koy xaw a baal. Ah, solo. <laughs> Ah. ngeen jékku waa mm. mais dara affaire làmb la rek suñuy adversaire ñoo fa nekk rek. suñu borom laa ñëw si biir xeex bëri. Mm. waaw mais dara loolu li ñëpp xa doon mais man man ku ne xam na ma te man àdduna du yàgg ba ma changé. bant moom àdduna du yàgg ba doon jasit waaw ndax man ku ma xam ni ma mel nii nii laa mel naturellement te am naa yaqin bu wér nii laay deewaale barki Modou saa gaynde laa mënuma si dara suñu borom moo ko def si man ragaluma kenn billaahi wallaahi si biir làmb ji ma gis ngeen xeex xeex bu sax si biir làmb ji avant ngeen a bëri waaw mais Pokola dafa yaakaaroon ni moo a gën a sadik te man li mu yor di ko wax man ñettam moom laa yor denc ko waaw li mu yor di ko yor. barke mu yor bëy lu mu lu mu yor bëy cëppi cëppi moom la nag yor ne muut doo ko dégg. waaw c'est que ñoom dañuy exposer seen seen seen vie yëpp ci internet bi te man du doxee noonu. waaw mais fii am na lépp. gawul dara. billaahi wallaahi. Mhm. si biir làmb bi biir gis ngeen xeex bëre. ngeen jaxasoo si biir bëre. waaw mais làmb jee ko laajoon loolu làmb ji laaj rek. waaw man moom damay toll foo xam ne lu làmb laaj dama koy def. mu si bañ dara waaw. am na bu bu laal taxawee ne daanuwul. waaw mais loolu àdduna ko wax man waxuma ko de àdduna bi ñoo ne ma yow dangaa daan. Mhm. est-ce que mën nga ñu wàññeekul tuuti ci site bi nga xam ne fii fii nga daa amee ndam. ah mais yow yaa ngi fa woon man maa ngi fa woon amaana yow mi nekk si biir géew si biti sax di seetaan yow yaa may gën a gis ka man mi doon bëre. yoo xam nga lépp da nga maa bëgg wax loo rek. <laughs> su ma xamoon lépp kay <laughs> du ma laaj bu la. wax loo ma nga bëgg xam nga lépp. li nga xamoon lépp du ma la. li nga ci gis gisuma ko ci sax. Ah, ma li nga wax nii li nga li ma li ma dégg nga wax nii man gisuma ko. waxoo ma ne yow man nga dara du la rëcc. yow yow boo xoolee ba yow yow wax kat xaw ma yéen a yem rek yow boo xoolee ba loolu rëcc la kon yow cuune nga yow nga bàyyi métier bi. moom moom même moom même moo xam lépp moom mooy gis nag. waaw lu mu gis wan la ko nag. lu mu gis rek gis nga ko. ñu gis ne bu laa dafa taxaw concerné moom dafa daan kee taxaw ne moo daan est la yoon may. ah waaw loolu ñun am nañ ay kilifa ñu koy bàyyi si loxo suñu yoon suñu kilifa yi rek. waaw ah, te dugal nañu recours bi ñu ngi xaar. Mhm. da dugal recours di xaar. waaw. kon daal jàpp nga ne am nga yaqin ne yow da ngaa daan ci site bu njëkk bi. waaye damaa daan ñaari yoon. Eh? waaw. site bu njëkk bi leer na Pokola teg na kaat appuis deuxième site bi leer na teg na fes loolu dafa leer. waaw yaa ko wax. yaa ko wax. ok ma bëgg a wax loolu rek waaye xam nga lépp. xam nga tamit waxtaan na neex waaye yow mi mii nday mbali yow yaa ma war a gën a mën a xam nga lépp ko man. ay nday mbil ngeen ndax yéen ngi fa woon tamit. ku nekkoon ci géew bi. ah yéen si bit di seetaan de gis ngeen lépp. wulaay yaa nekkoon ci de. ah waaw foofu sama wàll la <laughs> ah yéen tamit seen wàll matoon na sëkk. suñu li li tax moo tax ñëw pour leeral rek comme fépp la lépp di leere. waa mm-hmm. nga dafa leer affaire yi kay gaa ko wax man waxuma ko. billaay gaa yi ñoo ko wax man waxuma dara ba tey de. Mm. gaa yi ñoo ko wax ñoo ko gis ñoo ko wax. Mhm. kon daal xam nga li la yoon may def nga ko. Mhm. Ah. waaw. waaye bu laal dafa mel ni bi nga bëree ba mhm. mel ni li nga dese ci biir set bëreetul. waaw. <laughs> Aliou Aliou dama wax rek bu laal ne ma wala ah, kaay léegi damaa bëgg xam kaay googu nag lan moo ko waral. waaw da ngaa souligner point bu am solo. dafa saa yi da ngaa laal loo xam ne maanaam boo ñëwoon fii ba dem te waxoo ko mu bàyyi la àdduna ak àllaaxira barki Modou Moustapha bàyyi CNG bàyyi CNG CNG CNG mais CNG moom naka la ci nan barke Seydina Mohamed maa ngi bëre ay bori yi kese kese kese moo ma topp ma toog di xaar sama reliquat pour fay bor yi bàyyi ñu woo ma ne ma onze mille francs nga dese CNG. onze mille francs onze mille. ñaari junni ak ñaar téeméer. loolu lañ ma woo ne ma onze mille francs nga dese CNG kaay jël ma ne may naa leen ko. Eh? billaahi wallaahi si koo xamante ne bàyyi combat bi bàyyi li ma si daj li ma si def si xaalis. billaahi wallaahi romb na ñetti yoon lañ ma fay. boo yaakaaruma lu reliquat boobu pour fay bor yi ma am bàyyi ñu ne ma onze mille francs moo la desee waaye démb jooy sax def naa ko. dafa mel ni nag yéen waa jàmm. billaahi wallaahi si cadre doole la ëpp rek. CNG reliquat boo ko daggee bu doon da nga koy fajee suñu ancien gloire yi sax. wala suñu moroom mbëru sportif yi ku gaañu nga fajee ko ko wala bu ñu xamoon ñun fu xaalis bi du dugg amul problème mun nañ ko tenir mhm. mais bàyyi goro du bay baabu du dundee yow ay booy yu ndaw di liggéey di góor góor lu jaayante barki Modou Moussa Baye nga leen teg loo xamante ne ni Baye loolu loolu metti na métti na ba si kanamu yàlla te du man kese metti na torop torop torop billaahi wallaahi. jàmm gën moom saa bu leen daggee rek des 1000 faa mu am. li si des 1000 nañ ko fi mu <laughs> man làmb làmb làmb làmb musuma may dara billaahi li ma am li ma li ma am ci sama ci sama fond bopp man maa ko ñefeel sama bopp. fan fan mën a taxaw ne lii at lii tax ñu dagg la. amee ah, man man xaw ma loolu laa si am. ndax soo xoolee def naan temps bi. cinq minutes la xaw ma dix minutes la laa si am loolu loolu laa si am Maxime Bergane ma woo ma këyit ne ma dagg nañ la onze mille francs moo la dese ma ne ko may leen ko. may leen ko ko barki Cheikh Fall lu onze mille onze yooyu bu ko jël père bu ko bu ko fi indi sax waaw yow may naa leen ko ci xol bu sedd guy ma leen xamal ne ab Baye moom loo koy xañ rek yaa ko yombaloon. ab Baye loo ko xañ. yombalal nga ko. sa wax sànq damaa dégg nga ne bu doon li ñu leen di dagg dañ koy fajee suñu ancien gulaar yi mu neex la waaye li ñu leen di dagg xamoo fan lay dugg. mais loolu moo ma naqari man su doon dañ koy fajee booy am naa ay pas ancien gloire yoo xam tey ci chaise roulante lañ toog am na ñoo xamante ni ñu ngi tëdd si lal hôpital mënuñ jóg am na ñoo xam ne am ordonnance duñu am lu ko jëndee bàyyi ñun ñu am doole na si activité bi bàyyi suñu li ñuy dagg nañ ko fajee ñooñu wala ñu defal ñu ko ñun pension boo xam ne bu ñu màggetee dinañ ñu ko fay sax mais dara dañ lay dagg jël xaalis bi dem def ci lu leen neex eh. bàyyi loolu dafa metti loolu dafa metti est-ce que assurance yi ñu leen di dagg assurance yi ñu leen di dagg est que yéen a ngi si yéen a ngi waaw mais man gisuma dara man daal boy xaw ma nu mu mais loolu moom war nañ ci defaat seetlu bu baax a baax ndax làmb ji ñun ñëpp ñoo ko bokk. isaani comprendre lu ñëpp bokk nag kenn du ko aakimoo dañ koy dañ koy dañ koy pelloo ñu ñëpp ñu séddoo ko waaw kenn ku nekk am nga droit wax sa xalaat ci làmb kenn ku nekk am nga droit ne man nii laa gisee. su ko defee ñu taaj koo waxtaan mais am na yenn yoo xam ne jaay doole la te du yoon. man da man man dafa mel ni CNG dalaa jaay doole sa combat. mais dafa ma jaay doole parce que yow yow yow yow yow xale bu ndaw di góor góor di liggéey amul benn soutien ku ko jàppale man kese maay góorgóorlu di ñafeel sama bopp di dóor waar yow nga dagg ma xaalis boo xamante ne ne ma douze mille francs moo onze mille francs moo la dese ci lu tegul fenn mais loolu loolu lañ ciy waxtaanaat man ragaluma li may wax de. man CNG bi nekk. dagg dagg na la bi fi mujjee nekk dagg na la ba ban mooy différence. waaye yow déggoo lu ma la wax man liñ may dagg kenn xamul nu mu toll. waaw waaye man ma yoon nekkul si ñoom mais li ma bëgg ñu xam ko mooy booy nit boo doomu aadama boo nekkee nit nekk gor li ngay lekk da nga yóbbul sa njaboot da nga war a da nga war fexe mu doon lu lew. waaw ñun dañuy yóbbul suñu njaboot ñoom ñu yóbbul seen njaboot kon ñun bu ñu gën a gore ñun li ñuy yóbbu ak ñoom li ñuy yóbbul seen njaboot na doon loo xamante ne nii bu ko seen njaboot lekkee ëllëg barki Serigne Touba duñu am lu ñuy rëcc ñu ay doomu jàmbur lañ kër lañ yor comme ñoom isa yaa may dégg man li may wax ragaluma ko du ma ko moytu du ma ko du ma ko seral ndax man ku dul Cheikh Ibrahima Fall man mooy loolu barki Modou Moussa Fall. Aliou dégg nga li mu wax nee na ginnaaw bi mu bëree pare loolu la dese si xaalis yaa ko déggal sa bopp fi ñu toll nii nag bu laal fan la jëm si laam waaw man maa ngi fi pour làmb rek maa ngi entraîné maa ngi déglu samay encadrement fu ñu ma wax demal rek fa laa dem. am yoo xam ne nag ñu ngi sa xel yoo xam ne war a laale war nañ laa bëgg a bëreel. ñëpp bàyyi. waaw. wala Malick wala Malick Niang moo tax boo génnee si mbàjjam poowar rek dugg si mbàjjam man noonu laa mel yàlla noonu la ma koy nangu rek. mais man yow sax sax Baye Fall nangu dëgg la loolu loolu kenn warantewu ko. moom rek lañuy ñuy sàkku boobu ba tey waaw warul bëgg lu yomb ndax légat mënut jiitu góom. légat mënut a déedéet da ak Malick ñaar ñaar ñi nga xam ne dóor rek def. waaw dama leen estimer bëgg a bëreeg ñoom rek am nga borom bitigu mbagg boo gis boo xaree xol ba magasin nga ciy fekk ñooñu ay jàmbaar lañ moo tax mu bëgg a bëreeg ñoom hmm. waxantuwuma de dama loolu li may wax nii day dëgg si man. barke barke Modou Moussa Fall li may wax dëgg la si man. bu ma jotoon seen avance dama koy lekk. Sall moom delloo moom il est gumbal xamewul sax. billaahi wallaahi bu ma jotoon si avance am dama koy lekk. billaahi wallaahi. dëgg la li ma wax dëgg la si man de. Ah. waaw. dëgg la de. te fi mu toll nii pare nga pour jël avance bébé Saloum. pare naa xanaa yow looy déggee ah, pare naa moo bëggee may chance kay nañoo ñu bëre. yow bëgg Demba Ndiaye nii dafa waaw yow kooku baa ma ñoon la man man la. suñu garant bu baax la ma ngi koy nuyu passage. waaw. kon da ngay ñaan sens toll nii. waaw damay ñaan sens mu grand bi da koo may sens moom it la may sens. moom nee na moom nee kër gi amatul sens. kër gan. nee na dafa ba kër gi sens bi yàqu. moom man daal sens laay ñaan xaw këram moom la fa ne moo ko xam man xaw ma ko. Mhm. waaw. lan moo nga cité ñaari adversaires yoo xam ne dañ laa tiim Bébé Saloum Malick Niang. bëgg-bëgg la rek xam nga objectif doomu aadama moom kenn mënul fexe ba mu dindi ko. waaw ah, loolu la laa bëgg man. ndax suñu Baay ah waaw loolu fekk nga ñuy wax ko ba pare. fi ñu toll nii li ñuy wax rek ci si waxtu bi toll nii ku ne mbër na jàppale. sax comme naa ne combat bi nga jógee nii am na ñoo xam ne jàpp nañ ci bu baax a baax ñu la bàyyi nga sant ñooñu. waaw ñuy profité ci occasion bi rek di sant ku si mel nii. mooy daam suñu booy bi ñu nekk palaasam ni booy bu ndaw la mais day jaayante di góorgóorlu amul dara mais day jugo ko daanu mais ñun ñii daf def ci dafay jàpp suñuy affaire borom isee crème bi muy nii daam ma ngi koy nuyu bu baax a baax au passage jàpp na ci bu baax a baax eh, di nuyu lamin Seras du ma tàyyi ci di ko sant aw mu fayam mu siy jàpp du nuyu ci losi mu siy jàpp bu baax a baax a baax a baax a baax waaw di nuyu waa Petit Mbao aw seen fay post caaray moom man dama leen a bàyyee sant man ndax ñoom ñoom li ñuy man seen doom laa seen yëf man seen produit laa seen yëf laa. waaw lu ñu deful ci man rek dañ koo amul. waaw ñoom ñëpp cat ba cat lu ma soxla ci nit dama koy ñëw jëlal sama bopp sans problème waaw di nuyu Baye Fall yi may nekkal saa su ñoom assisté mu ngi nii jàmbaar la moom it góor yàlla billaahi ay see Diop xam nga di nuyu sa waay siyaaka jàmbaar la moom tamit kii maag magam ñoo ñooy meilleur ami siyaaka sama sama cag-cag bi <laughs> lu ma soxla aca rek mu jóg billaay jàmbaar la moom it ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñaanal ay moto yu bari <laughs> ay yu bëri <laughs> di nuyu ñëpp billaay di sant ñëpp di gërëm ñëpp. bu hmm. baax a baax. Hmm. waaw di gërëm jibi métro. Caaroy waa Maguette Caaroy yëpp maa ngi leen sant di nuyu Galo di nuyu Mbay Fall di nuyu Xaarim Taal aw ma fayam Xaarim maa ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu Cheikh mu Fall di ko ñaanal mu yàgg fi lool lool lool te ànd ak wér ak njabootam gépp di nuyu Baye Sakka Fall fayam waaw njabootu si ñëpp gépp gépp gépp maa ngi leen sant bu baax a baax di nuyu bu baax. Mhm. di la bëggewaat bu baax a baax rek di la ziaraat di la joxaat sa wàccuwaay bu wér xalil mu ngi noonu bu laal la doomu lamsaar bi la nee naa la dafa gëjoon bëri ñëw wane boppam si xeex ba sa bëre ba rawatina nag ci li promoteur gën a bëgg muy mbooloo mu ñëw wane si boppam. xalil ñu lay bëggewaat bu baax a baax di la ziarat di jox sa wàccuwaay tout droit lay doon di nuyu waa are Banjul nag aw ma seen fay ngan di biis lañ ma may solal ma si ay nit ba mu fees del del del ci kaw ak biir ak si suuf maa ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ñaanal are bi gaan yàlla si yàlla def tawféex ñëpp gis seen bopp ci barke Cheikh Ibrahima nuyu bu baax post caara ay isma ay père isma ñoom ñëpp aw seen fay maa ngi leen sant bu baax a baax di leen nuyu mhm. tout droit la doon xalil